charge dossier yoy nak ak sen instruction comme tout ce qui s'est passé autour des rapports kharul assises lol tamit na leer la mise en œuvre des assises kharul lay kharuko justice sera faite pour tout le monde et pour le futur comme pour pour pour ñi nga xamante jot na xew ñu nek ci dëkk bo xamantene dara daf fi xew ñu né dara en fait ñu né duñu xol ndax yoon amna ci wal wala amu ci wal maintenant li sénégalais yi war a comprendre mooy du man maay ne yoon defal lii bul def lii pourquoi ma def les assises parce que dama bëgg justice boo xamante ne dafa jël responsabilité am indépendance am di doxal lii cëram ci réew mi ci afia maanaam kenn bañ ko teg pression kenn bañ def intrusion ci fonction pour muy ñàkk indépendance wala leneen loolu moo tax ñu defar assises li ci tegu justice dafa am tempom. depuis bi ça fait au moins un mois lañ soumettre un projet de mouvement dans la magistrature comme nous muy dans d'autres administrations parce que bu ñu fàtte mukk benn affaire on aura beau parler de pouvoir judiciaire les magistrats c'est des fonctionnaires ñu def concours comme man état du Sénégal recrute les former leen affecte leen di am nak pour di bougé lo parce que ne mënul pas pen de façon statique pendant toute sa carrière mais dañuy évoluer en fonction de leur ancienneté de leur grade et des besoins de répartition de ce personnel là ko lol dara gënu ko naturel mais biñ mako joxé depuis un mois ma ngi def samay enquête and ci ñi may wara andal mobiliser ci service état bi yépp pour xam kan mooy kan fan la jaar lan la def pour que les nouveaux visages yi nekk ci yenn postes yi de responsabilité yi nga xamante ne am na ñi fa nekkoon bu ñu egsee ñu ne ah ñii ñëpp a seede na ñu ne ñu jub lañu ñu indépendant lañu ñu mën seen liggéey lañ parce que quand l'homme qu'il faut il a la place qu'il dina def ce qu'il amoon nañu justice am na luñ ci am na lu ci baax am na luñ ci war a defar mais terewul ko ci contexte justice boobu la ay magistrats defee loo xamante ne sénégalais yu bëri ñu ngi ko doon saluer Quand même avec le système existant il y a des magistrats qui ont le peuple bi am le amel na reconnaissance mais quand à dit di dossier bi kii nii il faut que je fasse fajal ko non, am n'est non c'est pas comme ça que ça marche j'essaie d'avoir des règles objectives et universelles d'application de la loi Je concerne concerne la concerne ñeneen concerne les victimes d'hier les victimes d'aujourd'hui et les victimes de demain que cette même justice-là se déploie de façon linéaire pour tout le monde mu bañ a am ku mu am ndey a ku amul ndey ñu ñuy joxe seen dossier ak ñu ñuy deg teg teg ci conc bi mooy mais loolu dañ koy def dans une certaine sérénité